muy sous préfet mo xam muy commandant bi wala mo xam muy muy xam mo xam mo xam ba nga àgg ci kilifa yi imaam yeeg ñi ñu def ni seigne abibou def suñu ko defoon dem ci seigne muntaha nako goné yi commencé nañ ci dëkk bi lo xamné dañuy ragal mu jëm kaw ñu bëggoon nga yëkëti ci sa cadeau dama né police du tal autom ap ponu du fi tak kenn du fi son li seigne muntaha wax ci guddigi bu ko waxon ci bëccëg ga guddigi du am motax ma le seigne bi dañ koy informer ndax nekkul ci biti taala am loo xam ne du baatin bu doon lu jëm ci mbirum yàlla ak lu mbirum jëm ci tareexa bi mën nañoo bàyyi noonu ndax sëñ Muntaxa mu wóor na ma ne sëriñ bi moom balaa seeti kenn seet ko ndax ay responsabilité la ko jox ba noppi di ko liggéeyloo yàlla it dana farak moom ci ci lu bari kon li nga xam ne mooy wàllu saayir génn taxaw ci bitti bi gis luñ la gis loo xoolutoon loolu moom dañ koy defal sëñ bi gis loo xoolutoon dañ koy defal sëñ bi dégg loo dañ koy wax sëñ bi ak ya ca aju yëpp kon am na ñu nekkal sëriñ bi ci biti nañuy teel a informer sëriñ bi te bañ a yàq derub taalibe yi bañ a soxlu nguur gi buñ yàq derub taalibe yi buñ soxlu nguur gi nañuy wax dëgg soxlu nguur gi mooy contre leen ba dootoo leen waxal dëgg yàq derub taalibe yi mooy lekk xaalisum nguur gi dem di di waxal sëriñ dongo yi lu demee wut noonu ci sëriñ bi loolu loolu yaar yëpp ay am jàppal na yaar yëpp ay am man toujours dama yox ne euh, bu fekkee ne jàpp nga ne boo faatoo soxla woo fa loxo yi kenn yu sëñ tubaa murit bu mu mën a doon sëñ Blaat na murit bu faatu ñu bëgg laa indil kenn ku dut sëñ tubaa soo mënoon a jóg da ngay romb aw yat jaasi ngay jël dal ca kaw ka la ko def kon benn murit bu bëgg a faatu ñu teg la ci yi kenn ku dut sëñ Tuubaa amul sëñ Tuubaa rek bëgg ñu teg la ci ay loxoom kon nag booy nekkal sëñ tubaa nay dëgg nekkalal sëñ Tuubaa na fex kenn ku ne fexe ba sa digganteeg sëñ Tuubaa leer bul nekkal nit bul nekkal état bul nekkal nangam ak nangam nekkalal sëñ tubaa sëñ tubaa moo lu du changé moo tax sëñ Muntaxa buñ ko bëggee dimbale dëgg fekk ko fi mu ne te buñ ko fekkee fi mu nekk am ndam ñun ñëpp man dama wàcc yàlla ne buñ fekkee sëñ Muntaxa danañ am ndam mooy nañ koy nañ koy nañ koy nekkal ci biti te di ko waxal li am gis nga murit yi sëñ tubaa yii sikkuñu barke borom Tuubaa murit yi sikkuñu sëñ Tuubaa lañ gëm buñ liggéeyee moom lañ koy jox bala woon nga xam tey jii ñu woote xoolal Touba ci kanam Touba gi li fi nekk ci ab xiif li fi nekk ci ay tumuranke li ñu wax ne moo ñu dal ci ci corona bi lépp teewut li Touba ci kanam dugal li Touba ca kanam li ci tuubaa dugal ci ay millions menn réew dugalu ko ci àdduna bi ci jamonoy corona bi ci ay 1000 francs te ñay joxe 1000 francs ya ay jaaykati caaf lañ ak gone yi ngay wax nii rek ñii nga wax naan amuñu kilifa am nañ kilifa dañoo am lu leen naqari nit nag danga koy àtte ci dëgg. état kenn du xeex moom kenn du xeex ak moom sëñ Saaliwu noon na état ak saxaar la ak saxaar ku dog aw yoon moom loo dal yaa ko teg sa bopp waaye nag saxaarit nag baaxuta a wàcc ab raay di topp di topp nit ñi ci mbedd yi saxaar ci ak rek la war a jaar waaye bu wàccee raay ba nag di topp nit ci mbedd mi saxaar gu rax la waaye saxaaru kese moom ci ab raay lay jaar waaye ku dog saxaar nag ci ab raayam it boo dee bul wax kenn danga xaru kon état dafa am ay responsabilité boppam. li état war a yor nañ ko bàyyee état li sëriñ si war a yor état bàyyee ko sëriñ si fii ci Touba sëñ bee fi am baat sëñ bee fi am baat buñ dee déglu sëñ bi duñ juum suñ dee rendre compte sëriñ bi it duñ am problème seen digganteeg mbooloo mi mën naa ko wat ñi nekkal sëñ bi ci biti it bañ a bëgg gafak la ne ca gafak ak état ba bañ koo bëgg te bàyyee seen bopp li ne ci wudd bi ngooñ mi ngooñ mi leen sëñ bi taajal nañ ci yam moo ne ci wudd bi waaye buñ soxlaa ca gafaka ga nag indi jafe-jafe nañ bàyyi état bi ak gafakaam gii mu seet ña ko yelloo mu jox leen ko ñun ñuy nekkal sëriñ bi te bàyyee suñu bopp ak sëriñ yaakaar naa daal lii buñ ko defee jàmm mën naa am maa ngi gën a santaat bu baax sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mamadou Fadal ci bienvenue sur talif ca kanam pour s'abonner sur talif ca kanam tu vas sur YouTube tap talif ca kanam clique sur abonner pour accéder aux vidéos